كون وارو تيست لا موميت كيف لاي لاج موتاخ فلي افلا ينظرون لوا با نوبي جمع لا واي بي وار نك واخو لك مbolo كين كوني يالا نغي واخا يو الم ترى كيف فعل كيف فعل ربك دبر بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ها جحنا خمني كتن بو أمتي بخي بو أمتي نيت أبون لكتن أبون لبخي تيالي دتويركو ألم تر نيوتي كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد لو فصب صب yàlla du tiré lo tax mu garaaw na boy tiré par ben ben ngay jam yàlla du tiré fa sab alayhim motax daw ci ba ngay ami tànk ndax sab ba jey tax waaw ku fa fekke rek si nga yàqu waaw motax ko bokkulul fu ngeen jëm di bokku togay du wóor fala taqud bada dicra maa alqawmi alzalimin waaw ñu am na question bu ñu laaj xayna yéen wa tante bi ngeen man ko tante ñu ngi ci waxtaan ba Mansour Sarr bi di ci sonn mook xalifa pour bëgg ñu noteel leen ko dafa am benn nitu yàlla bu doon doxantu di doxantu ba ñëw ci benn armeel ci biir armeel ba mu seen fa loo xam ni ci zaahir dañ naan dof la

mu xool ci suuf jël tànk bu càmmoñ bi diggat këdd suuf si rek nitu yàlla bi di ko xool rek bu jëkki jékki ba ci yàgg mu xool ndey jooram xaqataay nitu yàlla bi di ko xool rek bu jékki-jékkee xool càmmoñ bi yëkkat yëkkat nitu yàlla bi ni kii rabam yi metti na de dof bi ree ni ko maay dof wala yaay dof nitu yàlla bi ni ko lu tax nga wax ma loolu mu ne ko est-ce que xam nga lu may tàccu mu ni ko déedéet mu ni ko wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun moom lay tàccu li yàlla wax ni seen wërsëg nekkul ci seen poche seen wërsëg maa ko yor koy wàccee ci asamaan mu ñëw mu ne ko looloo tax mooy xool asamaan si di tàccu mu ne ko gis nga këdd gi may këdd suuf li sunu boroom wax ni naa ko وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سين سوف سي كلا لين بند ويتم كبير سوفسي لالين دي دخنات تكبير سوف بوب لالين دي جنوات نغن وخما فنغن جار ونكو خلات دي مي خلات لولو أكبر مليم ورد moo may jàpp ba may këdd sama tànku càmmoñ bi mu ne ko xam nga lu tax may xool fii diiree mu ne ko waaw mu ne ko wa asxaabul yamin ma asxaabul yamin waaw yàlla may ñu texe te mu di leen xool ñu féeti côté ndey joram mu di leen mu di leen muuñ reja ak xol bu sedd ba mayit lay xol ba mujj gi may re mu ni ko boo gisee bu ma xoolee côté bi fii di joy mooy wa ashabu shimali ma ashabu chimal waaw ak la ca yàlla teg waaw ëkku yamu leen ëkku la sama xol dul supporté moo tax may yëkkat waaw nitu yàlla ba fëx ñu ne nag ñoom ñaar ku ci yéemu ak ku ci waaru yéen waa daara ji wax leen ma waaw dof bi mooy yéemu nag ki ñu tudde dof ne du dof mais nitu yàlla bi moo waaru waaw waaw mais lii yéeme aaya yi waaru ki mu jàppe woon dof moo ko waara waaw looluy tax di tey baax parce que sunu borom bu dee insisté nan wa awfu bi ahdi uufi bi ahdikum mëtal leen seen wëllëreeg man ma jooxe sama kóllëreeg yéen dégg baat bi ñaari baat yu bokk la yépp ahd la matal leen seen wóllëre ak man ma jooxe sama kóllëre ak yéen am ñu ko laaj nag wóllëre gi nga ñuy laaj ban la mu ni fàtte ngeen ko xat ñuy seet ban la mu ni balaa ja alastu bi rabbikum qaalu balaa mu ni ngeen ni ma balaa ba noppi te bis bu ne ma gis ngeen romb ma jëm ci leneen awfu bi ahdi ni ma balaa ba noppi te bu ne ma gis ngeen romb ma jëm ci leneen parce que ba moo tax kom ni aadama rombe kàddu yàlla bi dem ca garab ga awa ba gaañ ko waaw moo tax